إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وخليله من خلقه وصفيه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ما تعاقب الليل والنهار وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله حل علينا شهر المحرم وهو شهر عظيم من أفضل الأشهر التي يستحب للمسلم صومها حيث قال صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم mbokk yi ginnaaw bi ñu sant yàlla suñu boroom subhanahu wa taala di ko dimbali ko moom yàlla di ko ñaan mu jéggal ñu suñuy bàkkaar moom mi nga xamante ni subhanahu wa taala képp ku mu jubal nga tegu ci yoonu sirata mustaqim yàlla ñu yàlla jubal waaye képp ku mu seetaan ci maandu teem ba nga réer amul kenn ku la mën a jubalaat ñu seede ne amul kenn ku nar jaamu ci dëgg ku dul moom subhanahu wa taala bokkaale ñeelu ko di seede ne muhammad sallallahu alayhi wa sallam jaamam la ndawam la tànneefam la xaritam la yàlla nañ ko yàlla fayal moom ak i saxaabaam ak képp ku topp ci njubu seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam fi yeeg guddi yeeg bëccëg yee ngi wutante mbokk yi ñuy dénk suñu bopp di leen dénk ragal yàlla subhanahu wa taala suñu xutbay tey ñu ngi koy fas yéene amal ci weer wu tedd wi ñu nekk muy weeru tamxarit muy shahrul muharram muy weer wi nga xamante ni mooy weer wi njëkk ci at mi ci atu jullit ñi istuwaaru at mi nag ak weer yi Omar ibnul Xataab radiallahu anhu bi nekkoon ñaareelu xalifa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom Omar bëggul woon ku koy wax xalifatu rasulullah maanaam ki wuutu yonent bi ndax loolu dafa diis ci moom mu ne nañ may woowee rek amirul muminin ci jiite jullit ñi ci jamono moom Omar ibn Xataab ginnaaw bi mu wuutoo Abu Bakr Siddiq ñi mu tegoon moom Omar ci dëkk yi ginnaaw bi mu amee ay futuxaatul islaamiya ay gouverneur ku ñu wax abu muusa al ashari radiallahu taala anhu waxoon ko ni ko yow Omar lettre yi ñuy yónnee nga xamante li ci nekk ay ay directive la yu ñu war a jëfee amul ay date xamuñu bu ci jiitu ak bu ci topp kon faw ñu am calendrier faw ñu am date Omar ibnul Xataab waxtaan ak ñoom saxaaba yi radiallahu anhum ñu tànn ci ban bis lañu war a tàmbalee wàññi kon ñu jël bis bii di bi ñu yónnee yonente bi sallallahu alayhi wasallam mooy almabaas joxaat ko beneen bis muy bisu gàddaay yi bis bi ñu jógee Makka jëm Madina mu ne nañu tànn bis bi nga xamante ni ci lañ jógee Makka jëm Madina ndax ci lañu tàqalikoo ak réer jëm ci leer ñu ne kon nag ban weer lañu war a tàmbalee ñu ne nañ tànn kon weeru koor ndax ci la laylatul qadri nekk te laylatul qadri lépp luy yàlla subhanahu wa taala di dogal ci jàmm mi ci bis boobu la koy ci guddi googu la koy dogal wala ñu jël beneen bis mooy bis bi nga xamante ni mooy shahrul muharram ñu jël weeru shahrul muharram bi ñu nekk mu ne nañ tànn shahrul muharram kon ndax shahrul muharram ponk islam juróom yi bi koy tëj muy aj mu ne moon sës ci weer bi nga xamante ni mooy shahrul muharram kon bis bi ñu njëkk a jël mooy bisu gàddaay yi moom moo toll ci at mii ren di 1446 bu dee weeri nag weer wi ñu nekk mooy weer bi njëkk ci weeru jullit ni ginnaaw bi borom subhanahu wa taala waxee ni at bi de mu ngi toll ci fukki weer ak ñaar bi ci njëkk nag mooy bii ñu nekk mu shahrul muharram mu am nag ay jagle yu am ci weer wii di shahrul muharram di weeru tamxarit bokk na ci jagle yi mooy tànn gi ñu ko tànn njëkk sax mu nekk shahrul muharram mu bokkaat ba tey ci jagle yi mu bokk ci ñeenti weer yi nga xamante ni ñu ngi wax leen di wax shahrul al ashhurul xurum mooy ñeenti weer yi nga xamante ni weeru traite la borom subhaanahu wa taala xaraamal ci lii di ay tour deret ay ay xare lépp loo xamante ni lu xaraam la ci mel noonu mu tere ko waaye mu nekk weer yoo xam ne yàlla da cay def ay jagle ci képp ku ko ci jaamu mu defal la ci ay ngëneel fulal la lam la cay lam la cay fay shahrul muharram bi mooy ñetteel bi sës ci bi ñu génn muy weeru tabaski ba nekk ca kanamam moo nekkoon weeru digg ñun noonu lañ koy natte coolo kon digg ak tabaski ak tamxarit gi mooy ñetti weeru shahrul muharram shahrul ashhurul xurum bi leen ñeenteel moom dafa isolé wu moom mooy weeru rajab moom la ñu gën a xam ci ñun ci kasu rajab kon ñeenti weer yi mooy weer yi nga xamante ni ñooy ashhurul xurum moom nii nag di weeru tamxarit dafa bokk ci ci ñeenti weer yooyu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la cay wax mu nii afdalu siyaami baada ramadan chahrullahi almuharram mu ni ginnaaw weer bi nga xamante ni yàlla da koo jagleel muy ci ngir koor rek muy weeru koor weer wi gën ñu ci war woor mooy weeru bii ñu nekk mooy weeru tamxarit kon ay ngën li ci nekk mooy ñu koy woor mu bokk nag ba tey ci ngëneelu weer wi ba tey mooy fukkeelu fan bi nga xamante ni dañ ko cee war a woor ndax fukkeelu fan bi moom yonente bi sallallahu alayhi wasallam dajee wax ni yukaffiru sanata almaadiya boo ko wooree bàkkaar yi nga defoon muy bàkkaar yu ndaw yi ci at wee ñu génn yàlla subhanahu wa taala dina la ci jéggal sa bàkkaar yooyu wa afdalu ma yasuumu fi hada alchahr siyaamu yawmu ashura xaytu qaala sallallahu alayhi wa sallam yukaffiru sanata almaadiya xadis boobu imam muslim moo ko solo histoire nag ndax juróom ñeenteelu fan ba dañ koo war a woor ak fukki fan wi kooku is xissa la ndax Muusa alayhi salaam keroog bi ko borom bi subhanahu wa taala muccalee ci firawna le superlatif des infidèles nga xamante ni moom li iblis bi nga xamante ni moom shaytaan rajim la yàlla moo ko génne ci yërmandeem jayee di ko jay di ko jay di ko jay ba mu taxaw ni ana rabbukumul aala subhanallah keroog la ko iblis ni nag lii moom li may bon lépp musuma ko wax waaye ñu gëmoon Muusa alayhi salaam ñoom Firawna daf ni leen yéen ñépp tey laa leen di rey Muusa dajale moom ak ñi ko gëmoon war a génn sa suuf sa dem gàddaay yi keroog nag ba ñuy dem ak seen minorité ak kattan gi nga xamante ni moom Firawna amoon na ko ci soldat ñu àndoon ak Muusa alayhi salaam dañ ne inna la mudrakuun dee nañ nag dinañu dab rey ñu ñëpp bam jeex waaye Muusa alayhi salaam keroog lim leen tontu mooy déglu leen alquranul karim mooy wax ak ñun keroog Muusa bi yàlla di wax ak moom ci yetam bi wa ma tilka bi yaminika ya Muusa loolu la ko yàlla lay qaala hiya asaaya première réponse atawakkahu alayha wa ahushu biha ala ganami wa liya fiha maariba uxra subhanallah Moussa yàlla benn laaj la ko laaj waaye wax ak yàlla moo neex subhanahu wa taala te mbokk yi bala ngay xam wax ak yàlla moo neex yàlla dégguloo alquran gii ngay xam ni wax ak yàlla moo neex yàlla ñu ko yàlla dégguloo lu ci nekk Moussa sa yat wii la ko yàlla laaj sa yat wii nga yor nii lu ci nekk wa maa tilka bi yaminika ya Moussa xoola lu nekk sa loxo nday joor bi yow Moussa mu ni hiya asoya lii de sama yat la rek atawakkahu alayha atawakkahu alayha mooy ci lay sukkandiku nii su may dox ci lay jafandu wa ahushu biha ala ganami sama jur gi su ma leen di sàmm moom laa yor di leen ci orienté waliya fiha maarib uxra Moussa xamuloon la sax li nekk ci yat bi yëpp waaye subhanahu wa taala def na leneen ci yat bi lu bokkul ak loolu mooy keroog bi ko Firawna toppee yat boobu la xaree géej gi yatu Moussa mu mën a xar géej gi de mbokk yi am na fu ñu woon fii day xar géeju sumba jun bi ba tey xaru ko waaye Moussa alayhi salaam keroog bi mu xaree géej gi jàll dem ba Firawna ni day jàll ci la borom subhanahu wa taala tëj géej gi Firawna ak ñakk àndaloon ñépp ak moom te lañu ñoom ñépp des ca géej gi mbokk yi Moussa histoire bi moom la wooree fukkeelu fan ci weeru tamxarit bi di ko sante borom bi subhanahu wa taala feccu ci tëggu ci nag di ko sante borom subhanahu wa taala ci koor yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lamma qadima rasul sallallahu alayhi wa sallam al madina yonent bi mu ñëwee madina abdullah ibn abbas mooy nettali xadis bi mu ni dafa ñëw fekk yahuud yi nekkoon ca madina di woor bis bi mu ni leen lan ngeen di woor nii ñu ne ko bis bii di Moussa alayhi salaam la yàlla musale woon Firawna mu ko doon woor ñun tamit ñu koy woor mu ni leen maa leen gën a yey ci Moussa alayhi salaam ndax sama naataango yonent la kon dinaa ko woor comme yonent bi sallallahu alayhi wasallam bis boobu mu ngi koy dëppoo ak ñu ngi koy dëppoo ak yahuudi ak nasaraani di ko woor saxaaba yi ni ko ah alayhi salaatu wasalaam ñun de jàngaloon nga ñu ni xaaliful yahud wa nasara na ngeen wuute ak yahuudi ak nasaraani ci seeni pas-pas te comme bis bi ñu ngi ko dëppoo naka la ñuy def mu ne leen kon bu ma fi déwén ngi fekkee insha allah dinaa woor juróom-ñeenteelu fan bi kon loolu mooy sunnay woor juróom-ñeenteelu fan bi donte alayhi salaatu wasalaam ba at ma di dellu si fekk na ko fii rafiq fii fi mala'il a'la fekk na moom génn na adduna alayhi salaatu wasalaam kon loolu moo tax li ñu sunnaal mbokk yi ci tamxarit gi mooy woor bisu fukkeel bi ak bis bi nga xamante moo nekk ci ginnaaw muy bisu juróom-ñeenteel bi aqul ma sami'tum wastaghfirullah li wa lakum wa li saa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil anbiyaa'i wal mursaliin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in mbokk ginnaaw bi ñu sant yàlla suñu borom subhaanahu wa taala di julli di salmal ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam lii nga xamante ni moom lañ wax léegi ci tamxarit lii la ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam digle muy sunna muy woor amul leneen nag lu mu ci digle ci ay xumbute ay caaxaan ak bidaa mbokk yi benn bis wala at muy jeex ci yow mu am xel jàppal ni say at de mu ngi yokk waaye yaa ngi dëgmal sag jeex te borom subhaanahu wa taala mu ne iqtaraba linnaasi xisaabuhum wa hum fi gaflatin mu'ridun bisu penc mu ngi nii suñu kanam du ñëw mbokk yi waaye yàlla nee na nit ñi bàyyiwuñ ci xel sax topp rek ngob lay àdduna gi mbokk yi liñ ci gën di def ñun Sénégal loo xamante ni yàlla alagoon na ci ay xeet mooy mbirum góor jigéen suñu waxee sujet góor jigéen rek moom sujet la boo xamante ni min nañ ko bu baax ci réew mi du ñu mës a toloré ci Sénégal wala ci àdduna bi loolu mooy li njëkk waaye ana lan mooy suuxat ak ngóor jigéen ci loolu lañ war a xool yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne laana allah yàlla rëbb na al mutashabbihina min ar-rijali bin nisa wal mutashabbihati min an-nisa bir rijal yàlla rëbb na góor buy nuru nuru lu jigéen ak jigéen buy nuru nuru lu góor moo xam ci wax ji la wax wala ci colko gi wala ci doxin wi waaye yow mi ne nag bisub tam xarit la nga koy def mooy da nga ciy foori tama ay ndënd nga ciy foor jigéen ñi sol yërey góor góor ñi sol yërey jigéen ñu ne dañuy fecc ka way est ce que kooku xam na la xew subhanallah est ce que ñun xam nañ la xew mbokk yi laanatullah mooy yàlla dalaa rëbb yow yàlla rëbb la ana lan mooy sa utilité sax ci kaw suuf ana lan mooy sa utilité ci kaw suuf tam xarit yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñu jàngal naka la ñuy jaamoo yàlla ginnaaw bi ñu yàlla waxee niñ koy jaamoo ci alquranul karim ñaar yi mooy tànk yi alquranul karim ak jàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lii la jàngale ci tam xarit leneen lu dul loolu nag gëstu ko xool ba xam lan mooy balluwaay bi bu dee lu ñu sos si diine nga génne ko ndax kulla bidaatin dalaala lépp luy bidaa lu ñuy sos di ko askane diine tudd diine kooku da la yóbbu ci réer wa kulla dalaalatin fi naar te bépp réer nag mi ngi jëme boromam biir safara wala iyaazu billahi min annaar yàlla nañu yàlla musal ci safara ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله